alors kilifa gi ngi lay bu wóoree waaye jëwriñ. tur bi naka la. Afia Samb. Afia te a wax si màggal gi. sant yàlla. dolli gëmmaat yàlla. gërëmaat sëriñ Afia Fallilu Baye Fallou sëriñ Fallou mi nga xam ne tey moo ñu indi si tool bi nga xam ne baayam fii la woon bayee li tabax jumaa ji ndax yaa may déglu ëtt bii ñu taxaw. mooy ndindi sëñ Fallou tey ñu dëppee ko ndindi sëñ Afia Fallilou fii lan doon bayee gerte gi nga xam ne moom lan doon wecceeku di si tabax jumaa ji tey sëñ Afia Mbacke sëñ Fallou dencal ko ko ndekete denc bi yëpp sëñ Baara Afia Fallilou mooy yëgale liggéey bi ñu ànd koog moom nag muy bénéfice su ñun ñi nga xam ne sëriñ Afia moo ñu booleeg moom muy doomam di tedd ji sell. muy suñu sag si yoonu murit barke Serigne Fallou Mbacké ñun nag dañuy gërëm Serigne Afia Fallou mi nga xam ne sëñ Fallou mi ñu booleeg moom naxuñu kenn la yaakaaroon daana nga wax ne Serigne Touba daa ëpp sëñ Fallou doy na rek ñu koy liggéeyal mu faj sunu aajo moo tamal Serigne Afia ma doon Baye Fallou Serigne Fallou te bu doomam tey di ko liggéeyal doon Baye Fallam ñu dañuy xam ne ne Serigne Afia Mbacké ba tey ñu ngi woon boppam. ñu ngi sant yàlla ndax wéetuñu si ëtt bii ndax àdduna day dox fii àll la woon bu nu demee ba mbooloo di fi teew di fi yëkkati turu yàlla ñu togg ay berne ay doomu aadama ñëw fii ay xale yu ndaw di doog a juddu ñu leen ni wan nii jaamoo yàlla ah yoonu sëriñ Touba mu ngi yeesaat nag di beesaat te Serigne Baara am na loo xam ne ku ko bàyyi xel di nga xam ne Serigne Touba li muy liggéey tàmbali na ndax moo ne woon samay sët bu nu ñëwee ngeen xam ne li may liggéey mi ngi doog a tàmbali waaw ñun nga dag dañuy sant di gërëm sëriñ Baara Afia Fallilu di xam ne wéetuñu ñu ngi doog xam kan mooy Serigne Afia Fallilu ndax nit dina ñëw ba dem doo ko xam te man Lisa santaat naa samay waajur ndax moo na ma sant leen seen waajur yi bu lu baax woon doo leen ma gis ba may liggéeyal kon nga xam ne sëñ Afia tànneef la ndax noonu rek la mën a demee ndax waajur amu tedd wa darman ko sëñ Fallu mooy bi mu demee ngan nga sa Mauritanie keroog yaay jàll doon jooy si bool bi nga xam ne añ bi dañ koy indi sëñ Fallu sëñ Fallu ne leen attan na ko jox leen ko ndekete boobu añ bi mooy yaay jàll ba ngeen di peesee da leen ne ndeyu alxuraan lii laay jël si muy sëriñ Afiya yaayam yaay jàll kon sëriñ Afiya dafa am tànneef kooku bàyyam da koo fonkoon ba da koy teg si njoowaan ne ku koy joow ma fay la bu yàggee sama na leen bàyyi leen maa koy joowal sama bopp ne Afia mi yéesul benn góor sa waay dama ne la sëñ Afia mooy sagu murit te jàmm boo ko bëggee da ngay jub sëñ Bamba dafa ëpp si jàmm ñi barke maam Serafal ñi ngi ñaan nag balaa déwén ku fi ñëw yàlla sa aajo faju ndax sëñ Fall fii la woon dafay di dindi fii ku fi ñëw tey sëñ Baara faj say aajo adduna ak alaaxira waaw jërëjëf sëñ Fallou waaw li sa bëri yëpp mënuñu koo wax waaw kenn du sëñ bi waaye lépp nag dañ koy dollee maam Serap Fall mi na woon sëñ Fallou bu ñu fàttee suñ affaire bi muy tàmbali fii Touba boobu Touba Baye Fall bu fi dugg dañ naan faqar wala ñu yàpp ne yuuxoo sëñ affaire ñëw indi civilisation si Baye Fall Baye Fall day set Baye Fall day civilisé ah gisoo sëñ Baara barke Cheikh Ibrahima Fall yàlla na jàmm yàgg gaay yi waaw Sénégal gi yëpp ñëpp am jàmm. Sénégal fii ku fi deful jàmm loo gis yaa ko teg sa bopp afiya rek waaw yaa salaam jaajëf sëñ bi salaamaaleykum mbokk internet yu wasaare célébrité ak lii di Dakar Midi ñëw ngi nuyu bu baax a baax di leen ziar gannaaw ba ñëwee si màggal Touba 2022 bi di wër si dal yi tey nag ñëw nañ si dal bu ñu war a ñëw muy sëñ Sidi muy sëñ Baara Mbacke Afia ñoo ngi fii si ndinda si ndinda Afia salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi ziar bu baax jaajëf. gannaaw bañ la nuyoo di la ziar bu baax a baax nan nga dundee tey di màggal Touba 2022. waaw màggal bi moom mu ko dundee ak bànneex waaw mbégte ak daal lañ ko dundee ak jàmm ju mat sëkk moom ko dundee <laughs> waaw. boo message boo xam ne moom ngay gannaaw mag bañ màggal bi bi tawul fii nii ba message nga ngay jox Sénégalais yi. waaw message bi may jox Sénégal de moo damay nuyoo ba pare damay nuyu mbokk jullit yëpp nuyu taalibe yëpp di ziar ñëpp di baalaax ñëpp di baalaax ñëpp waaw di jiital ci nuyoo bi nag sëñ Mountakha Bassir waaw xalif général Kolombi di ñaan yàgg fi lool di teg saxe ba baraka xalifa sax Modou Fadal mu yàgg fi lool te wér waaw ak euh, Baye Fall yeeg ñëpp rek xalifa Baye Fall yeeg ñëpp yàgg fi te waaw moom bu ñuy joxe message moom dañuy wax rek. nanu mm, jaamu yàlla rek waaw jaamu yàlla daal ku ci deful perte nga waaw jaamu yàlla te tegu ci yoon daal ku ci deful perte nga loolu message boobu daal la ñuy joxe mooy ne ñëpp <laughs> jaamu yàlla rek xam yàlla rek a fi nekk mooy lépp waaw ci seen waaw. leen gis ne kii di sëñ Bara Mbacké jeunes yi bëri ñu ñoo la topp macha allah te Sénégal foo ne Sénégal ne jeunes yi ñu gis ne activité yu bëri jeunes yi ñoo koy dund moo xam ay manifestation moo xam yu doy ni mu mel noonu boo amoon kàddu yoo xam ne moom yan lay doon. ah waaw loolu moom loolu <laughs> moom laaj bi mu doon sax laaj bi noonu ku taxul ma comprendre ko bu baax. ma ni ah. eh, ku sax ku xam sëñ Bara xam ne hmm. maanaam jeunes yi jeunes yi ay jeunes ak ñoo ko topp. waaw ñu ko topp ñu si bëri ay jeunes lañ. te bu nee Sénégal tamit na jeune. bu nee développement na jeune. Mhm. te Sénégal fu mu toll nii soxla na ay jeunes am soxla na ay jeunes am. Mhm. pour mën a développer bu baax a baax. Mhm. moo xam ay manifestation si wàllu politique yi. moo xam rek leneen ak leneen jeunes yi ñooy jóg bu baax a baax. tey jii ba amoon benn message boo xam ne da koy envoyé jeunes yooyu lay doon. waaw loolu de moom xam naa ne xëy na mm, loolu moom sunu sunu sunu sunu waajur wu teddoo Cheikh Afia Mbacke Fallilu moo liggéey loolu waaw te jeunes yi. di avenir àdduna waaye ñun moom suñuy manifestation moom ñun duñu politique waaw duñu politique euh, sëñ Tuubaa rek lañ ñor waaw lépp lu ñuy def sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek la jëm waaye duñu politique duñu duñu ndax ku nekk rek ak wàll ba nga yor rek da nga ci nekk waaye ñun suñu wàll du wàllu politique wala moom ndaw ñi moom buñ leen di soññ dañ ci ñu xam ñoo ñan te xam ni ñoom ñoo avenir àdduna ñoom lañu yaakaar ëllëg waaw ah, ci ci ci développement bi waaw ah, te du du du xeex du xuloo lenn lu dul euh, yaatal suñuy xol raxas suñuy xol yéeneente jàmm waaw ah, bàyyi bàyyi di wax ci nit lu ñaaw lu la wóorul bàyyi di bàyyi di wax ci nit lu ñaaw te nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla waaw ku muy digal la jeunesse bi mu leen digal loolu laa leen digal te fonk it seen i kilifa ndax kilifa yi kat ñooy lépp ndaw lu ci fonkul sa kilifa yi ndaw du ci loo xam fonkoo sa kilifa perte nga sa àdduna waaw ak ku mën di doon nag ndax euh, bala ngaa bala ngaa fonk sëb sëriñ ni say waajur jiitu ba noppi ndaw yi nag man noonu laa ànd ñoom ku ci fonk sa waajur du ma ànd waaw kon nag loolu leen di digal ndaw yëpp nanu nangoo liggéey nangoo nangoo nangoo nangoo jaamu yàlla te fonk seen i waajur fonk seen kilifa te bàyyi wax ju sew ak wala wala wala di jëw nit wala di wax lu ñaaw waaw ndax Euh, loolu amul benn njëriñ te ñu raxas xol yi waaw bu raxasee xol yi rek moom léppay lépp lay daal taw fi waaw. tey sëñ bi nan nga nar dundee ak taalibe si guddi gi. waaw xanaa sant sëñ Tuubaa rek moom la ñu fi nekk taalibe sant sëñ Tuubaa rek ndax moom bis bii kat dañu woon nan ma ko sant la yàlla kon nag ñu nag taalibe dañuy sant yàlla rek waaw di ko santale moom ku tedd ki waaw Seexul waaw ba ba moom koy sant gi sax maam du yam sax ci guddi gi waaw dañuy koy kii rek waaw <laughs> sant rek <laughs> waaw ba kii rek incha allah waaw. bu ñu wax loo xam ne maanaam si Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul boo xam ne bés bi moo ko waral tey. surtout yow ak diggante ak ak diggante Cheikh Ahmadou Bamba waaye itam rawatina maanaam sa waajur ak diggante kii Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. ah waaw moom xam nga Serigne moom du ku ñuy xam. ndax ñu moom lottu nañ ci xam ko waaye moom ndax xëy na ci mbaaxam rek la mën a wax ndax ñu moom gis naa ni euh, ñu ci boole sëñ Afe sëñ Falloo ko ci boole sëñ Fallu sëñ Tuubaa ko ci boole waaw ndax bisam bii kat dañ koo jaarale fu ne def ko ci lu ne mu dund ci lu nekk ngir rek yërmande jaam ñi ak liggéeyal liggéeyal yonentam bu tedd ma ak sunu borom waaw kon euh, moo waral bis bi waaw waaye Sëñ Tuubaa moom du mënuñu see ci leen ndax moom buñ ko wax sunu xol day day day kii waaw waaye daal moom daal kenn la daal waaw kenn la ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax xam naa ne amoo jot moo tax duñ bëgg a jël waxtu bu bari boo amoon kàddu boo xam ne moom ngay tëjee tey ñu waaw kàddu yi mooy mooy mooy maa ngi sant maa ngi maa ngi maa ngi sant ñëpp rek di ziar ñëpp mbokki taalibe yëpp maa ngi ziar ñëpp waaw rawatina taalibe yi nga xam ni moom waaw taalibe suñu affaire yi ñi nga xam ni danoo takk seen digg eh, lépp lu nu ñu koy def waaw di sant ku si ni Pape Mamadou Fall di sama sama di ndax sama waaju boole maag moom muy ñu ñu yéen ñaar mën na mel ni yéen a bokk ndey ak baay waaw sama waajur génn àdduna mu continuer loolu waaw di sant njaboot gépp di sant su ma ni njëw ba afiya aliou afiya galas mboobu taalibe yëpp jëwriñ ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax waaw xam naa ni kàddu kooku daal moom lañ moom lañu rek sant taal ñëpp rek waaw <laughs> bëgg nañu ndax dañuy juum ci ñëpp waaw di ñëpp leen sant yéen di ñaan suñu borom yàlla ñu gën a gën a ngeen ci li nekk dafa leen ci taw tawféex du saawan baawaan si barke Seexul Xadiim waaw jërë ngeen jërëjëf sëñ bi gisee ngeen kii di sëñ Bara Mbacké Afia yëkkati woon tey jii si màggalu si màggalu euh, màggalu 2022 bii ñu nekk den jox digg daje rek beneen yoon si barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam si barke borom Touba jërë ngeen jëf.